وضاحي في إخدام خير الورى بدا وفي كل شهر زيد ربحي وفي صفر بسم الله بسم الله waaleykum salaam wa rahmatullah bokki jullit yi bokki taaliba yi ginnaaw bi ñu jiitalee ci siyaar bi sëriñ Touba Cheikh Mouhamadoul Mountakha yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér Eh, di siyaare sëriñ Yaafi Buso al imaam tey ñoo ngi fii ci biir jumaay Tuubaa ji toog ak eh, bokki taalibe yi nga xam ne ñoo jógee ci réewi Afrique yi eh, fu mel ne Touba Mali ak Touba Côte d'Ivoire ci teewaayu daayira Muxaddamatul Xidma sëriñ Abdul Ahad bu sa maam asta toog nii ci suñ wet dont ki nga xam ne moo jiite lu aju ci wàllu relation international ak sëriñ Abdou Lahad Bousso Thierno eh, ak sëriñ Abdou bu Bousso Moutalib ak sëriñ Fallou Mbacké eh, jataay bii nag li ko waral mooy eh, bokki taalibe yi nga xam ne ñoo nekk Mali sëriñ Bay Caam teew nii doon vice président daayira bi teewal fii mboolem waa Mali gépp sëñ Maam Balla Gueye di jëwriñ ja Euh, ak sëñ maam Balla Mbacke mi nga xam ne moo jiite liggéeyub Seexul Xaddim ba te nekk foofee ca Mali ñu àndoon ak sëñ Abdou Khadir Mbaw ak sëñ Moussa Tall bi ñu egsee tam ñu jébbal sëriñ Afi bu sa liggéey bi ñu xam ne moom la bokki taalibe liggéeyoon ca Mali euh, muy liggéey bu sell boo xam ne euh, kenn ku ne gis na ne waxtu wu ne mi ngi yokk indi nañ fi lu toll ci téeméeri junni kon sëñ bay jërë ngeen jëf ni ko sëñ Afi waxee ñu jaajëfal ñëpp nag ci mbooleem ku nekk rek Mali tegaat ko ci seen loxo bu ko defee sëñ Touba ngi nii toog moom itam bàyyi ko ko diwaar bi mu egsee tamit ànd ak sëñ sa dex kan ñoom itam ñu ñëw indi seen liggéey bi bàyyi ko ko diwaar jébbal ko sëriñ Afi bu sal imaam muy liggéey bu sell boo xam ne ñoom itam bokk nañ ci ñi nga xam ne bi daayira Muxaddamaatul Xidma wootee tàllal loxo rek te ñoo daal di wuy si Eh, te waxtu ci ne ñu ngi gis ak yokk ak yaatal liggéey bi niñ ko yaatale indi nañ fi tamit lu toll ci juróom-benn fukki junni ak juróom-benn trois cent trente mille kon jërë ngeen jëf yàlla na ngeen ko yàgg a jëf yàgg ko fee indi ci barke Seexul Xadim kon xam naa dañuy jël kàddu gi rek jébbal ko sëñ Bay Caam bu ko defee mu wax ci turu daayira Touba Mali. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. Euh, mbokki jullit mbokki taalibe ñoo ngi leen di yéen ñëpp kenn ku ne ci turam ak santam di jiitee ci nuyoo beeg siyaar bi Cheikh Mouhamadou taxa di ñaan yàlla suñu borom yàggal ko fi lool te wéral ko ak mboolem njabootug seexul Khadim ki ak mboolem Cheikh seriñ Touba yi euh, dañoo dikkoon fii nag tey ci jumaay Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ci di jébbale liggéey bi nga xam ne euh, waa Touba yi liggéey nañ ko mu war a dem ci liggéeyu Cheikhul Khadim bu sell bii nga xam ne bokk na ci ndénkaan yi mu fi bawoon biñ nag fekk nañ fi suñ kilifa yi nga xam ne heure bu ñu dikkee rek ñoom dañuy jox liggéey bi euh, ku mel ne Serigne Abdul Ahad euh, ñaari Serigne Abdul Ahad yi fekk nañ leen fi di leen nuyu bu baax di leen siyaar di leen jox nuyoo beek siyaar bi ñu jàllaleel ñu ko ci mbooleem ñi nga xam ne ñoom la àndal liggéey bi te nekk ci bërëb bii di nuyu sëriñ Assène bu baax a baax di ko siyaar ak suñ mbokki taalibe yi ñoom sëriñ Touba mi nga xam ne ñoo jóge ba Touba Côte ñoo ngi leen nuyu baax di leen siyaar. Euh, di nuyu Serigne Mame Balla Mbacke bu baax di ko siyaar ak mbooleem taalibe boo xam ne nekk na ba ma ko àndoon ak ñun liggéey bi di leen ci jaajëfal bu baax di jë nuyu jëwriñ bu baax Serigne Mame Balla Gueye di ko siyaar bu baax euh, man mii di wax ak yéen di ndongali Mbaye Thiam àndoon na ma ak Serigne Abdou Khadir Jili Mbow ak Serigne Moussa Tall euh, ñëw fi indi liggéey bi mu toll ci téeméeri junni jébbal ko Serigne Afia bu sa imaam nuyu na leen siyaar leen ñaanal leen fa ngeen ko jëlee yàlla na ko suñu borom ful. Euh, kon nag euh, ñu feddaliwaat laxasaay yu bu baax a baax rek di profité tamit ci occasion bi di woo taalibe Sëñ Tuubaa yi nekk bitim réew yëpp kenn ku ne di la tàllaat loxo nga gën a bàyyiwaat liggéey bi xel ci côté yëpp nag te xam ne fii ab liggéey fi nekk boo xam ne euh, liggéey bu rëy la bala nga koy xam nag nga ñëw ba yegg si fii kon ñoo ngi tàllaat ñëpp loxo di sàkkuwaat ñëpp ñu feddaliwaat laxasaay yi fas yéene li nga xam ne moom lañ takk ba indi ko ñu fàtte lépp xool li ci suñ kanam fas yéene cee liggéey Euh, di ñaan yàlla nañ ci dëppoo ngërëmal sëriñ bi waaw ñoo ngi nuyu ñëpp nag di siyaar ñëpp di wàcc foofu suñu kàddu rek. bisimilah asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu euh, mbokki jullit yi mbokki taalibe yi euh, noo ngi leen di nuyu lu bari te di leen siyaar di jël nuyoo yi ak siyaar yëpp. jiital ci sëriñ Touba sëriñ Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké Al Basir di ko ñaan yàlla suñu borom yàggal ko fi ba yàlla defal ko tawféex li nga xam ne am na yéene liggéeyal ko sëriñ Touba Xaadim Rasul yëpp suñu borom defal ko ko mu ànd ko ak mboolem jullit di yëpp. Euh, bu loolu jàllee tam ñu ñëw di nuyu mboolem mbokk yi nga xam ne si ne ñu ngi ci daayirul Muxaddamatul Xidma yëpp rawatina ñi nga xam ne si ne ñu ngi ci jaspora bi. waaye itam di jël nuyoo yi ak siyaar yi teg ko ci loxol sëriñ Abdoulahat Boussa maam Thierno ak sëriñ Abdoulahat Boussa Mokhtar sëriñ Abdoulahat Boussa maam Asta ak sëriñ Abdoulahat Boussa mu talib ñu àggale nañ ko ci mboolem kilifa yi. Euh, ci naka noon tam ci lañ siyaar bu baax sëriñ Assane Diop xidma bi nga xam ne si ne moo ji coordonné li nga xam ne si ne mooy dayru muqaddamatul xidma rawtan yi nga xam ne si ne ñoo nekk ci diaspora bi yëpp. Euh, di jaajëfal bu baax Serigne Mafari Ndiaye ci jottali gi nga xam ne si ni mu ngi koy jottali liggéey bi ci jaspora euh, bi euh, bu loolu jàll rek ñu dellu si di wax mboolem mbokki jullit yi ak mbokki taalib yi nga xam ne si ne ñoom lañ seqal li nga xam ne mooy daayirul Muxaddamatul Xidma rawatina ci diwaanu Côte d'Ivoire di leen xamal ne ñu ngi dollee sant yàlla bu baax di dollee sant Serigne Touba Xaadim Rasul ci liggéey bi nga xam ne suñu borom tawféexal nañu ko ba ñu tàbbis ci li nga xam ne si ne mooy liggéey daayirul Muxaddamatul Xidma Euh, ci loolu ci la ñu sant mboolem mbokki jullit yi nga xam ne si ne ñu ngi ci Côte d'Ivoire yëpp rawatina ñi nga xam ne si dañoo amoon carte de membre Euh, di barkeelu ci liggéey bi euh, ci waxtu wu nekk ci saa su nekk ci saa bu ñu leen soññee euh, ñoom itam ñu daal di def seen kéemtalaay kàttan def luñ mën ak luñ mën ngir taxaw ci liggéey bi muy mbokk yooyu nga xam ne si ñoom ñoo am carte de membre di barkeelu ci liggéey bi ñu ngi leen di sant bu baax di leen xamal liggéey bi ñu ngi ko ànd ak Serigne Sadikh Kane moom itam mu jógee ba Touba Abidjan amal ca taxawaay bu rafet rafet boo xam ne si ne mboole mbokki Abidjan yëpp xam nañ ko euh, moom itam mu ngi nii suñu wet moom Serigne Sadikh Kane ñu ngi koy sant bu baax te di ko gërëm di ko jaajëfal euh, di leen xam ne suñu liggéey jébbale nañ ko fii ci jumaay Touba euh, ci kanam Serigne Afia Boussa al imam ànd ak Serigne Assane Diop ak Serigne Abdoulaye Boussa Moutalib Serigne Abdoulaye Boussa Mame Asta Serigne Abdoulaye Boussa Thierno ak Serigne Sadikh Kane ñu jébbale trois cent trente mille mu doon loo xam ne si suñ suñu yéene raw na loolu fop waaye li nga xam ne si moo nekk ci sunu kanam mooy gën a laxasaayu gën a feddali sunu laxasaay ba li nga xam ne si ni mooy liggéey daayira Moukhaddamatoul Khidma ñu àggale ak foo xam ne si ni fooguñu ko woon te am nañ yaakaar ci ne ñaan yi nga xam ne sëriñ Afiya Buusa al imam ñaanal la ko mbokki jullit yi ak mbokki taalib yëpp rawatina ñi xam ne si ni ñoo jàpp ci daayira Moukhaddamatoul Khidma am nañ yaakaar ci ne ñaan yooyu suñu borom du ko neena te dina ko nangu euh, kon ñi ngi jaajëfal mbokk yëpp te di leen sant te di leen gërëm di jaajëfal bu baax itam sëriñ Mouhamadou Moustapha Fall ak Serigne Bara Fall eh, ñoom ñi nga xam ne si ne ñoom ñooy ñu ndaw ñi eh, di jàpp ci liggéey bi eh, ñi ngi leen di séenu it Eh, ñu ci lancé wu appel leen seen wit ci waxtaan bi nga xam ne si ne war nañ ko amal ci kër Serigne Afia Bousso al imam ci dimanche bi nga xam ne si ne moo nekk ci suñ kanam eh, ci bu 17 jotee ngir ñu war a waxtaane lépp loo xam ne si ne eh, luy jëmal liggéey daayira Muxaddamatul Xidma la waaye tam rawatina loo xam ne si ne li nga xam ne si ne mooy waajtaayu laylatu mawlidi nabi te ay fan yu néew dox suñu digg ak moom loolu tam ñu ngi ci soññi mboole mbokk yi nga xam ne si ne ñu ngi ci daayira Muxaddamatul Xidma rawatina ñu ngi ci diaspora bi waaye tam rawatina ñi nga xam ne si ne ñu ngi ci diwaanu réew Côte d'Ivoire euh, ñi ngi wàcce foofu suñu kàddu te di leen sant te di leen gërëm te di leen jaajëfal euh, xanaa liñ ciy dolli rek balaa ñuy ko buukale ñu wax ne mbokk yi nga xam ne si ne dañoo nekk ci diwaanu Côte d'Ivoire comme ni nga xam ne noonu lañ ko waxee rek képp ko xam ne seen yàlla dogal nga bëgg euh, carte de membre boo jokkoo ak ñun daañu la ko toppatoo di leen xamal it fii ci studio Jumaay Tuubaa it fii ñu topp carte de membre yi bu ko defee tam nga mën a nekk membre unique di man di participer di joxe say say barkeelu wasalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu. ak sëñ Serigne Mbaye Thiam ci kàddu yi am solo yooyu e, ci jaajëfal gi ngeen jaajëfal bokki taalibe yi àndoon ak liggéey bi rawatina ku mel ne sëñ Mafari Ndiaye mi nga xam ne kenn ku ne xam ne ne ambassadeuru Seexul Xadim la ci jumaa ji ndax bari na ci réew yi Afrique yi foo xam fu mu fi dem rek liggéey bi yaatu na fa kon nag ñu jël kaddu yi jébbal ko suñu Abdoulaye Bousso maam asta mi nga xam ne moo yor kaddu Sëriñ Afia Bousso ci di ko wax ci ci ci seen teewaay ak ci ci ci kàddu daayira bi bisimilah. asalaamaaleykum wa mbokki jullit yi mbokki taali bi ñu ngi leen nuyu di jiital ci nuyoo bi sëñ Tuubaa Cheikh Mouhamadou Mountakha di ko ñaan yàlla suñu borom yàggal ko fi loolu tuwéral ko ba lim yéene la gis sëñ Tuubaa def ko tànn ko noonu waaye di leen nuyu ci turu sëriñ Afiya bu sa imaam mi nga xam ne moo jiital daayira Moukhaddamatoul Khidma ak sëñ Abdoulaat bu sa Mutalim mi nga xam ne mi ngi ci jataay bi di secrétaire général ak sëñ Abdoulahad bu sa Cerno mi nga xam ne moo jiite culture waaye bokkaat ci commission bi yor bitim ci ci liggéey liggéey bu rafet ak sëriñ Fallou Mbacke Cheikh Touba mi nga xam ne moo jiite wàllu organisation bi ak sëriñ jii li mi nekk ci bokk ci communication moom it ñu ngi leen nuyu seen tur ak kilifa yi fi nekk yépp di sant yàlla bu baax ndax fii la ñu toogoon ni ngeen daaw doon yokkalante yéen lu jëm ci liggéey bi kon bu ñu yàlla mayate ñu fekk si koog daa ren ba teewaat sant yàlla war na ci kon ñu ngi sant yàlla sunu borom tey ñaan mu fekk laan ñu ko ay déwén yu bari te ak jëf te ak yokk ñu ngi nuyu sunu mbokki taalib yi nga xam ne ñoom ñoom ñu saq liggéey bi te nekk ci jotaay bi muy waa daayira ak waa daayira Côte ñu ko sëñ mbay mbay caam waxee rek mi nga xam ne moo bàyyi koo Mali ñëw doon jëbale seen addiya àndoon ak sëriñ Abdou Khadir Mbow ak sëriñ Moussa Tall ñu ngi leen di nuyu seen tur te jotal ngeen jotal ñu ab nuyoo sëñ Maam Balla Guèye ma nga xam ne moo jiite daayira bi moom ni mu tagal ñu ko ci loxol sëñ Maam Balla Mbacke ma nga xam ne moo jiite fédération Seexul Xadim ak mbokki taalib yi nekk Mali répp di leen sant di leen gërëm seen taxawaay bu rafet ci gis nañ ci koor gi da ngeen ciy doon jàmbaar màggal gi nga doon ci jàmbaar kon sant yàlla mm, ci seen taxawaay bu rafet war nañu ñi nga xamal ne daal bàyyi nañ leen xal ci seen jëf ju rafet bàyyi nañ leen xel ci waxtu wu nekk taxawaay bi ngeen war a taxaw yi a ngi koy taxaw ci du ngeen nekk sax ñu soññi leen da ngeen koy taxaw taxawaay bu ma ne mat jàpp ko jàpp mat ngir jëm Serigne Touba ñu ngi ñaan yàlla ne yàlla sunu borom dimbale te dimbale ñu te di nga xam ne mbokki taalibe yi addi jigéen ngeen andi ñëw na ba defal nañ leen ko ci màggal ñu ngi sant yàlla ba baax noonu ñu ko waxee rek nag nan la ñuy nuyoo sunu mbokk Côte ñu ngi ci jataay bi Serigne Touba Lo mi nga xam ne mooy jëwriñ ji ñëw na fi teewal fi waa Côte d'Ivoire yëpp ànd ak Serigne dex Kan mi nga xam ne Abidjan la ñoom ñaar ñu andi ñëw teewal fi jëmm ya ca des ña cay jàpp ñëpp muy góor ña muy jigéen ña muy mag muy ndaw ña ay kilifa yaak donga yaak ñëpp. kon ñooñu ñëpp ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm tu nuyoo boobee ci gox boobu ak yeneen gox yi mel ne ñoom yëpp danañ ko teg ci loxol sëñ Mafari Njaay ndax ku nekk xam ne sëñ ma ku ràññu ko la ci daayira Moukhaddamatoul Khidma ci yaatal ko ba da ciy deful liggéeyam boo xam ne fu ne dana fa dem foo xam ne ci ëpp léeg-léeg yaatal fa daayira mooy moo mu dem fa ci réew yi ma wax ak yeneen réew yi ma wax kon sëñ Mafari ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm di ko nuyu di ko jotal sunu nuyoo di ko seeral ni seen addi yegg si na soññi bi yegg si na ñu ngi ñaan lépp luñ ci jëf yàlla ñu ko yàlla boole ci bàkki Seex Xaadim ñu ngi leen sant bu leen gërëm ci jëf ju rafet ji ngeen jëf ndax mel na ne barab bi li mu laaj bu ñëpp defoon ni yéen lu ci dana saafaru waaye nag jëf ji li muy rëy rëy li muy bari bari nit ki dafay am positif cee jëf borom barab bi boppam mu bokk ci ñi ciy jëf waaye ko amul positif jëf ci doo bokk ci ñi borom barab bi tànn bëgg fee dugal sa alal dugal fokk nga fees ak Pastef fokk nga dogu bëgg fee def mu ànd ak Pastef bu ko defee borom barab bi taataan la dugal la ci yéen nag bi ngeen yore ak yéen ñi mel ni yéen moo waral borom barab bi di leen tànn ba seeni i ñaq seen i lépp ñu mën ci barab bi ndax barab bi moom loo sori sori ti soxol nekk sëñ bi ngay dund sëñ bi yaay koy jege bi loo jege jege te dundoo sëñ bi yaay ki sori sëriñ bi kon mbir moom jege sëriñ bi la ak dund sëriñ bi kon nag yéen yi ngi tegtale ne la ngeen nekk fu soree sori teewul xam ngeen ne barab bi am na lu leen ci war ñi fi nekk tamit taxawaay am na lu leen ci war ba yéen ngay taxawee loolu ñu ngi leen ci sant ñu ngi leen ciy gërëm ñun nag seere rek lañ ci waaye bari jëf ji borom baraag bii ngeen nekk ci moom moo ko moom leen te di ci dox nag di leen sant yéen ñi nga xam ne yéen ay teew nii bu ngeen teewee nii sunu jataay ñu toog sëñ Assane Diop mii nga xam ne liggéey bu rafet lay def ci euh, bitim réew bi ba bari na loo xam ñun waroon nañ ko ci taxawee moom moo ñu ca wuutu di ci liggéey liggéey bu rafet ci Europe ci Afrique ci Amérique ci Asie ak yëpp mu ci taxaw taxawaay yu rafet kon danañ leen seereel moom mii ngeen di jaar ci moom nii ko am Pastef la ci liggéey bi ku bëgg liggéey bi ku bëgg liggéey bi jëm kanam la xam naa fu mu bëgg mu egg fa bu su fa eggee lépp dana gën a baax baax na ba noppi sax waaye dana gën a baax kon ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm ci turu kilifa yi di leen ñaanal yàlla sunu borom may leen wér te may ñu ko defal ñu wér ak fan gudd may ñu xéwal yu bare bare te liggéey bi li yaa yaatu yi te buñ ci gis suñu bopp nañ ci gi sëriñ bi rek te yàlla bu ci seytaane amu yoon yéen fa ngeen nekk yàlla na leen yàlla sàmm musal leen ci ayu noon may leen ci musal leen ci ay yëpp ba ngeen mën di at ak dikkaat seenu njaboot te lépp ànd ak jàmm ña fa nekk te am gàllankoor yi ñëw tamit yàlla na leen yàlla sàmm waaye fa leen ñëw gi bañ mën di ñëw ak delluwaat seenu njaboot ak xéewal yox ya tax ñu dem fa yàlla suñu borom yombal leen ko ñi ngi leen di sant ñi ngi leen di gërëm ñi ngi leen di ñaanal ñu egg ci ñu ñu fekkwaat waat déwén ak jàmm eggee ci gàmm gi ñu bokk waajal gàmm gi nañ ko daa ko xam ne day na mu xadamata ñetti ñoo gën a diis ci moom màggal gàmmu koor doon na waxtu nekk am na feram yu diis waaye yett yi ñoo gën a diis ci moom ci daayira moo xam ne lu muy def lu nekk rek saa bu ko tàmbalee ci boppam ñi ci bokk kenn ku nekk yi génn sa cotisation ya ngay joxe la ca des ci mbokki taal bi mu nekk ci àdduna ñu dugal seen loxo kon ñu ngi leen ñaan yàlla suñu borom yàgg leen fekkale loolu ba ngeen yàgg cee mën a jëf te am yéene jëf ci te mën cee jëf ci bàkki Seex Xaadim wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu abax fi ixdami xayri wara bada wa fi kulli shahrin zayd ribxi wa fi safar